waaw fa tabarakallah nga nag euh, présenter sa bopp yombul euh, seen mbokku daara la boo xam ni mu ngi gën a siiw ci oustaz Baytir seen Laye yàlla dogal itam sunu jaar-jaar ci wàllu daara euh, ñu ngi commencé jàng ci sunu keppaar gi ñu juddoo ndax sunu maam ji nga xamante ne moo yar sunu wéyjur wu góor di góor gi Ismaïla Mbeng eh, dafa yoroon daara ci loo xam la ñu mokkale alquran fa jóge itam dal di dem ci daara ju siiw ci yoof siiw lool ci Sénégal ak ci Cap-Vert rawatina ñu koy wax daara Seyna Haji Malick Sy radiallahu taala anhu eh, foofu itam fa lañu ñu itam ba am fa sunu certificat d'étude ak sunu brevet élémentaire bañ fa jógee itam dem nañu tafsir Ahmad Ba foofu lañu amee bac gannaaw sa bi jóge nañu fi dem France euh, ci INALCO département la boo xam ne mu ngi dépendre ci Sorbonne Institut national des langues et des civilisations bañ fa jógee itam fa tabarakallah dem nañu Caire ñu laata dem Caire jaar nañu Arabie Saoudi ci daara ju mag yu ñuy tuddi Jaamiatu Ummul Qura Euh, jaar keer yitam foofa la ñu amee sunu licence ndax dañoo spécialisé wu ci littérature arabe euh, bi ñu amee sunu licence yi ñu spécialisé wu am sunu maîtrise ci théologie islamique euh, bañ fa jógee itam dellu seewaat nañu France ci daara ju mag di ñu Michel Montaigne foofa la ñu defee DEA diplôme des études approfondies ah bañ fa jógee itam dem nañu université Perpignan fa la ñu defee sunu thèse doctorat ah, ci wàllu activité nag ah, danañu def ay conférence ci diaspora bi daanaka États-Unis danañu def état yu bari buñ fa demee danañu dem Baltimore New York New Jersey Rhode Island ah, ba Texas waaw danañu dem Espagne danañu dem Angleterre danañu dem Italie Euh, benn cycle conférence la boo xam ni daanaka euh, at mi yëpp danañu ko di def euh, danañu professeur lañu itam danañu defalu consultant itam ci wàllu lislaam jiite nañu itam mbootaay goo xam ne zahirin la tudd daanaka am nañu ay cellule fépp ci àddina bi ñooy seen responsable moral ci wàllu diine ji itam daanaka muxaddamal nañu depuis année soixante-quinze waaw am nañu ijaza euh, foofu ñu fi dem itam daanaka dañuy dem en tant que représentant confrérie bi en tant que représentant xalif bi waaw fa tabarakallah laaj ngeen góor gu am solo nitu yàlla bu am solo euh, Seydina Limaamu di góor gu tedd euh, koo xam ni tuuram daanaka euh, doomu lébu la euh, te lébu nag ku ne xam na leen ci wàllu napp ak mbay euh, weejuram wu góor ñu ngi koy wax maam Alassane Thiaw weejuram jigéen ñu ngi koy wax soxna Kumba Ndooy mu gën a siiw ci Kumba Jagata turam nag ku ne xam na ne lébu li di wàllu njàng daanaka géejuw ci woon waaye li indi turu imaamul mahdi yu Euh, ci xeexu Samba Sadio boobu ngeen dégg xam ni Omar Foutiyu radiallahu taala anhu moo ko ubbi woon ba doomam ji ñuy wax Ahmad Cheikhu utuka ci yàlla dogal jamono boobu nag am fukki góor ak benn yoo xam ni dañoo jóge yoof jamono boobu yoof ñu ngi koy tudde tànk euh, waa tànk ba ñu demee ne dañu koy jàppale ci jihaar ji Euh, ba mu leen laajee ñun ko ñu ngi jóge ci sawu jant bi ci gox bu ñuy wax tànk ndax boobu dañuy wax ne fi la tànk yam mu leen yeen na ngeen dellu yéen doo leen uti diine diine moo leen di ut si max diw mi addinay xaar jamono di ko xaar ci yéen lay jóge su ngeen demee ku dem na ku ci am doom bu góor na ko tudde imaamul mahdi yàlla dogal ñu nekkoon fukki góor ak ñett ñoom ñëpp ñu taawloo ay góor ku ci ne tudde doomam max mahdiyu waaye maam Alassane moo mujje am doom ju góor tudde ko max mahdiyu yàlla ci dogalam limaamu ñi ko jiitu woon yëpp faatu moom rek moo ci dund moo tax tuuram foofu la jóge e, yàlla dogal itam wax dëgg yàlla mu juddu ci e, lébu ku ne xam na ni e, ak ceddo moo fi notoon daanaka li safaanoog tawxiid sax muy bokkaaleeg yàlla eh, xawoon nañ ci sori lool ci diggante ay tuura ki xamb eh, Seydina Limaamu nag ñëw ci contexte boobu ci ay mbokkam yoo xam ni seen ngëm ci yàlla soroyul walla bu ñu ko gëmee itam dañuy ŋarale am na lu ñu koy booleel mu war a génn mbokki boppam ci lëndëm googu indi leen ci leeru tawxiid war a génne mbokki boppam itam ci sàkkute sànkute googu ginni leen teg leen ci jub gu leen jubaleeg seen borom kon loola moo di mission bi mu ñëwee itam wootewul ne mooy sëriñ ndax ci wàllu njàng jàngul jàngul waaye lu mu daan di wax rek dafay wax ne jibril jëlee na ci boromam mu jotal ma ma jotal leen moo tax bi mu wootee itam daanaka fóore yu bare dañoo ñëwoon di ko nattu waaye yàlla dogal ku ci ñëw rek dana la wax ci téere yi loo xam ne li ngay jàng ba ñu lay tuddee kàng fóore wala tafsir eh, dana la yéem moo tax ñu bari dana jëflanteeg ñoom ci xam-xam moo tax ba mu ñëwee def ne ulama yi teg leen téere yi jamono dikk na kon ci leen war a firil seen alxuraan dikk na moo tax buñ ne jàngul sax nag ci li ñu miin a wax la waaye dafa jàngi fu ñu jotewul wala dafa jàngi ci koo xam ne jotuñu ci moom kon wa allamaka ma lam takun taalam wa kana fadla alayka azima dafa daan bindalu dafa daan jàngalu waaye bu ñëwee ci wàllu xam-xam dana firil boroom xam-xam yi loo xam ne mënuñu ko dégg ci alquran kon daal bu ñu la doon tënkal mu nekk góor goo xam ni mu ngi gëna si àddina ci 1843 woote itam ci 1883 génn àddina itam 1909 la génn àddina doomam taawam Seyna Issa dal di ko utu ba 1949 moom Seyna Issa ci la toog mu toog euh, macha allah ñeent fukki at Seyna Mandione itam doomam la woon mu dal di utu Seyna Issa euh, de 49 ba 71 doomam ju ñuy wax Seyna Issa ñu gën ko xam ci bay Sidi Thiaw mu toog de 71 ba 87 rakkam bu ñuy wax maam Alassane ñu gën ko xam ci maam Raan moom mi toog itam quatre 87 ba 2001 kon boo xoolee seen xilaafa rek ndax Seydina Limaamu boo xoolee 66 ans la dund loolu muy màndargal Allahu kon Seydina Isa ñëw toog 40 ans Seydina Mbay ñoon toog 22 ans Seydina Isa bi ko wuutu toog 16 ans maam daan ñëw toog 14 ans boo ko boole itam mu ngi lay jox adadu 92 muy Muhammad kon boo xoolee toogaayam ak xalifaam yi ko wuutu ba fi ñu toll daanaka boo koy wàññe daf lay jox allahu muhammadu loolu daal la ñu la mën a jox ci portrait am comme amuñu waxtu bu yaatu daf ko tibbe ci tawxid mu di laa ilaha illa allah ci la duppee yarinam te boo xoolee itam def ko tënk ci ñeenti waar ndax wax naa la léegi jàngul waaye kàngfoore yi ko waroon ku ca mel ni Cheikh Mokhtar Lo ak Cheikh Abdou Kay ñoo ñëwoon ay bindekatam waaye lu mu daan di wax itam daf koy delloo ci alquran bindakat yooyu nag ñoo koy bindal lii nga xamante ne mooy njàngaleem bi may bëgg a wax ci arab ndax dafa wax ne azurukum fi basatinikum bustani duniyakum wa bustani axiratikum wa bustani xayatikum wa bustani mamatikum wa anzurukum fi xayatikum kayfa tasnauna fi fitnati dunia wa katkadiha wa maamiliha lan la wax mu ne am na ñeenti tool yoo xam ni man seenaa Limaamu dana leen ci nemmeeku tool bi ci jëkka mooy seen toolu àddina lan la na ma ci toolu àddina mooy sa yarin ci sa soxna ak sa njaboot ndax loo ji ci soxna si rek mooy meññant mi jebbi ci njaboot ji euh, lan moo tax mu jiital chantier boobu euh, ndax ñi ñu war a yenul penc mi ñi ñu war a saytul penc mi foofa lañ leen di waajale moo tax mu jiital ko ndax ñi war a jiite jàkk yi war a jiite réew mi war a atte ci tirbinaal yi ci keppaar googu lañ leen di waajal mu ne beneen tool bi itam mooy seen toolu àllaaxira mun na ma ci seen wàllu jaamu yàlla mu ne ñetteelu tool bi seen toolu dund fa ngeen di tuur seen ñax ngir fàggu lu lew lu ngeen dundale seen njaboot ñeenteelu tool bi nag mooy seen toolu bàmmeel ndax gannaaw farata ji leen yàlla teg am na yiw woo xam ne ndollante la wooy mottale farata yi la yàlla teg ah, seen alimaamu nag mu ne ñeenti tool yooyu dana leen ci nemmeeku waaye am na ñett yoo xam ne bu mu leen ko yàqal fitnu àddina tërëdik àddina ak mébétu àddina mu ne na ngeen rafetal seen mbay ci ñeenti tool yooyu ba ñett yi bu mu leen ko yàqal kon loolu dana ñoo ko mën a dégg ndax mag ñu bari ndax bu ñu demee ci maam Cheikh ba loolu la waxoon mu ne sanca naa sama dëkk waaye nag ñetta laa ko sanca ñetti jiñ àll ba àllu ba allahu akbar kon loolu méthodologie la boo xam ne ci yarinam eh, ñeenti tool yooyu la jiital tey bu ñu ñëwee ci tool bu jëkke bi am solo gi mu am solo ndax tey xar kanam boo gis ci jigéen ñi tey xar kanam boobu na nga ko séntu ci njabootu ëllëg moo tax seen alimaamu dafa bari lu mu daan soññee lool ci ñu xër ci ni ñu war a sonne ci njaboot ji njaboot gi nag buñ ko waxee mu ngi tàmbalee ci soxna yi xoolal ba mu ñëwee rek mu ni asalu an diinikum kayfa tasnacuuna bihi ala anfusikum wa ciyalikum wa kayfa arricaaya allati tarcauna biha ala al azwaaj wal awlaad wa kayfa taxfazuunahum min alzayxi walzulmi walfasad wa kayfa waaw lu mu waxee mu ne maa ngi leen di laaj seen wàllu diine nan ngeen koy dunde yéen ak seen jaboot mu dal di barak la ko mu ne may leen di laaj nan ngeen di sàmmoonte càmm ji leen yàlla sàmmaloo soxna yi ak njaboot yi waaw mu ne ngeen sàmmonte ñett ci njaboot ji bu leen jàng bu dee soxna yeeg njaboot ji fexe leen itam ba bu leen tooñ ndax bu ñu waxee aqu wéjur itam aqu njaboot moo war a jiitu wéjur wu ne njaboot ji la yàlla sàmmaloo Seydina Limaamu ni bu leen tooñ ndax ragal àqu yàlla def la ci ñoom fexeel it ba bu ñuy yàqoo ci sa loxo waaw wa kayfa tahmuronahum bi taallumi awamirillahi bi ijtinaabi nahyihi wal ijtihaad fi amri diin mu ne noo leen di digale fexe ba jàngal leen li yàlla jàngale fexe ba moytuloo leen li yàlla tere ak itam nga farlu loo leen ci mbiru diine tey bu ñu taxee foofu sëñ Diack euh, Seydina Limaamu na mu daan firile boroom xam-xam yi alquran boo demee ci suratul ahzab yàlla mu ngi wax ni inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna min wa xamalaha al insan yàlla mu ne dafa am benn yenu kóolute boo xam ni daf ma ñor ma gaaralal ko asamaan pour mu yenul ma ko mu dagal di saw bi joxe ngant gaaralal ko suuf gaaralal ko tunde yi waaye ku ci ne ragal na diisaayu yan kóolute boobu ba joxe ngant yàlla mu ni ma yan ko nit mu yanul ma ko boroom xam-xam yi daan di ko fire julli ñi koy fire tawxid ñi koy fire nurul iman waaye seen alimaam mu ci sañ-sañam mu ne amaanatullahi boobu njaboot la nan la ko firee ndax doom ju jigéen la taawloo tudde ko Salamba Thiaw waaye mu dal di ko jox dakkantal mu ne hazihi amaanatullah kii mooy yenu kóolute bi yàlla junjoon ci alquraanam kon nag ndeke yenu kóolute bi mooy xilaafatul ard tànn gi yàlla tànn nit mu war ko uutu ci kaw suuf nekk fi représentant kon noonu la koy firile boroom xam-xam yi loola kenn la ci dëppool ndax daana wax ni bataaxel yi jóge penku ñooy doon sama seede ci li ma leen indil ci diine muy lu bees ci for yi jamono imaamul mu ngay wax ni asabbiyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatun nafisa fa in uwida alxayra wa ullima nasha alayhi saida fi dunia wal axira wa in uwida charru uhmila ihmalu bahaim chaqiya wa halak xazali mu ni njaboot dafa di kóllëre ku yàlla fasanteeg ñaari wéjur yi mu ko dénk waaye mu indiwaale xol bu laab boo xam ni dañu koy méngaleeg ngalam mu ne ngalamu yàlla wowu nag yow mi yàlla dénk fexeel ba bu mu tilime ci sa loxo kon lan junj mooy ni olof bu ñu ne liir du liir waaye leeru yàlla la dari àddina tilimalu ko ba muy jóge ci yàlla mu la koy dénk itam dafa nekk daanaka xët mu set kon nag fexeel ba la muy tooyaale mu cay fendewale mu nekk yiwu yàlla moo tax mu ne njaboot bu dee ne dañu ko tàggat ci yiw mu ko ci yiw ne ne loolu texe lay doon ci moom waaye bu fennale ko ci safaan nee ne loolu alkande lay doon ci moom kon loolu lan la bëgg wax ne njaboot du ko ñu war a yefal waaye dañu koy yar ndax bàyyi ma lañuy ñuy kon nag Seydina Limaamu ngir wane poids njaboot rek ba mu jëlee njabootam gu jëkk tudde ko amaanatullah firil ñu loolu alquran waxoon loolu dafay jàngale lu bari moo tax bari na lu mu koy dénkane fa usikum bil iyal fa inna al iyaal yasuquuna awliyaahum xata yuqifuhum bayna yaday illahi taala euh, xutba bu gudda la waaye comme amuñu temps mu ne maa ngi leen di dénk njaboot ci kenn yéen kilifa yi na ngeen xam ni kuy kilifa ëllëg yàlla dana taxawal njaboot ci taxawal la nga pencook ñoom comme ni ko alquran waxe waqifuhum innahum masuluun yàlla mu ne yéen waajur yama dénkoon na ngeen taxaw pencook njaboot ci naa Limaam andi na foofu soxna yi mu ne soxna yi danañu wax ni ah yàlla kat ci mooy jëkkër ja nga ñu boole loon waaye sàggewoon na sa ax te axam daaw ci bale dara bu ñu masaana sàggane li nga xamante ne mooy mbiru lalam dana yëkki loxam addina yëpp dégg ñoo moom bu ñu masaana sàggane itam li di wàllu togg ci wàññ wala wàllu wëgg gàtt yi lu ci ne dana ko jaral mu yëkki loo xam dal di beew ci suñu kaw waaye lii di sa ax muy sàggane julli walla sangu walla njàpp ne ne wala loo xam ne itam powam jigéen la moo xam fecce wala way lu ci ne yoonam masu ci nekk kon dafa nekkoon daal ak dayuus la yonent bi wax la laanallahu dayuus yàlla rëbb na ak dayuus ah, verbe ba xaw nekk loo xam ni dafa tumuranke arab yi làkki mu ne dayus arrajulu lazi la yubali bi ahlihi mooy góor gi yàlla dénk soxna waaye nag itteem mooy li mu bëgg ci soxna si rek mooy ak xam ak yelleefam waaye li ko war ci soxna si ci yor ak yor ci dina yoonam nekku ci kon Seydina Limaamu euh, loolu euh, mu nekk loo xam ni daanaka tey bu ñu ñëwee ci tool boobu Euh, sëñ Diak di nga gis ni yàlla ba muy melul jigéen daf ne nisaa'ukum harsun lakum faatu harsakum anna shitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah waalam annakum mulaquhu mu ne jigéen ñi seeni tool lañu waaye nee na tool bi nag na nga ci béye nu mu la neexe waaye jëkk a béy ci itteel la amaloo jiital ci moom kon nag am na lu ñu yàlla junjal kon nag tool boo ko laata béy di nga waajal suuf si ba moom fertilité di nga ñàkk tool bi itam ba mu doon bañ a nekk përëx warax kon loolu ana lañ lay jàngale kon yàlla bu melolee jigéen tool tool boo ci bëggee meññanta mu barke am na noo ko war a waajale am na noo ko war a bay wal baladu tayibu yaxruju gis bi izni bi réew bu suufam selle gàncax gu ci jebbi barkel looloo tax nag sëy naa limaam tey bu ñu ñëwee ci tool boobu bu ñu ñëwee ci loolu itam dafa am solo ndax dafa am benn wax ko arab bu ne hal yurja li atfalin kummalin isarta dau suddiya naqisat ne ne bu ñu sàgganee jigéen ba mu wàññeeku ci ñett jigéen wàññeeku ci nite wàññeeku ci jikko wàññeeku ci diine ndax danañu am yaakaar jigéen jooju waajalal ñu njaboot goo xam ne dana mat ngir yenul ñu penc mi xale arab ba dafa xool bu mu yàgg ne waccu ummi waccu ummati ne ne xar kanamu ndey bi may wéttaloonteel ci kër ji génn guma ci mbedd mi de waaye mu ngi may joxe melokaan lu mbedd mi kon image ndey ci biir kër ji ndeke mu ngi may junje image askan weeg mbedd mi donte génn guma looloo tax nag Seydina Limaamu euh, mission foofu la ko tàmbale